baaraam holen sa sama loxo ah di whole time bi naka la fa daajoo bu ko defee ba xam nu mu di masanse, lila lii la UDP ana wa NPP ana wa PDOIS tey kër bu maduga. ma dugga ministère yi génn si leen laay leen leen laaw sanse dafa mut xale bu jigit, ci nila sanse. man re. Wahat tumadara. damay dox dox bi ndee sa ajaa salot ahang kenya. suma doom ja tamit jaar si Fadera axañ keñ kontaan naa nii laa defati axañ keñ suma njëkkee nag suma xariti xol suma magi boppa suma yaayi boppa suma everything moo jaar si suma hair US Beauty Supply and Hair Studio anti Yama Diouf kontaan naa loo sanseeti rek te defoo mees bu baax rek sansewuloo waaye loo solo rek te defoo garaam bu ba rek te defoo dara yan lii lan la nii da ngay jonga dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag,